asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi àndaat ak yéen ci sunu darsu siira tey ñuy jël ñaareelu tomb ci arrasail wal futuxaat arrasail wal futux mooy lettre yi nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam jógoon na di ko yónnee bépp buur bu mu xamoon nga nekk ci peggam walla nga sori woon ko yonent yàlla muhammad jóg na pour yeggali lislaam ci sa pegg ci sa wet ci sa gox ak ci sa moomeel ak li la wër waaye xam ngeen ne yonent bi balaa muy bind lettre yooyu ginnaaw gàddaayam moom yonent bi jóge Màkka jëm Médine ba mu nee cëpp Médine li mu njëkk a def mooy samp kenoy lislaam yi tabax société boo xam ne société islamique la ci Médinatul Munawwar waaye société boobu yonent bi jógoon di ko tabax boole na ci keno yooyu ak tabax ba benn armée bu dëgër boo xam ne dana jox lislaam jëmm dana tax képp kuy noon nga ragal mbaa nga moytu lislaam waaye tax na société boobu yonent bi taxawaloon ca formé armée bi dëgëral keno yi tax na ñépp ñu ko waroon daal di koy ormal daal di koy respecté ñi nekkoon ci wër a Munawwar yahud yi nga xam ne daanañu tëral ay congrès ak ay ndaje cëmidin Médine ba ñu gisee loolu tiit nañ moytandiku waa Quraysh nde waa Màkka ñi noonu woon yonent bi ba génne ko ba ñu gisee yonent bi samp état moytu nañ ko waaye ragal nañ ko mbokk yi yonent alayhi salaatu wasalaam ba mu jeexalee ci loolu mu pare ci sulxu xudaybiya ah fii nag la tàmbalee tasaare lislaam ci yeneen état yi nga xam ne waroon nañ madinatul munawwar yonent bi bind na ay lettre jëme leen ci ay gox waaye tànn ñu mu fay yónni yonent bi bind na ay lettre jëme leen ci ay dëkk ci ay gox waaye tànn it ay ndawam yamu fay yónni yonent bi bind na juróom-ñetti lettre jëme ko ci juróom-ñetti buur ci juróom-ñetti dëkk tànn juróom-ñetti ndawam lettre bu njëkk bu yonent bi bind mu ngi ko jëmee ci dëkk bu tudd Éthiopie Habasha ci buur bu tudd najaas yi ndaw la fa li yonent bi tànn mu jëme lettre ba ca buur ba mu ngi tudd Amr ibnu umayyata ad-damri amr ibnu umayya ad-damri mooy ndawal yonent alayhi wassalaam ndaw loo xam ne moom yonent moo ko tànn di ko yónni ci Éthiopie ci buur bu tudd Najaasi ñaareelu lettre bu yonent bi jëmee ci dëkk ci buur ak ndawam la mu fa yónni yonent bi tànn na ndawam ñaareelu lettre bu tudd al ala ibnul xadari al ala ibnul xadarami ci ban buur la ko jëmee la ko yónni mooy al munzir ibnu sawa ci ban dëkk dëkk bu tudd bahrain kon ñaareelu ndaw yonentu baa ngoog jëm ci ñaareelu dëkk ci ñaareelu buur ñaareelu ndaw yonent bi mooy al ala ibnul hadarami ñaareelu dëkk bu yonent bi yónnee lettre pour dëkk ba tuub mooy Bahrayn ci ban buur al munzir ibnu saawa ñetteelu ndawu yonent ci ñetteelub dëkk ci ñetteelu buur yonent bi tànn ci ndawam yi ku tudd abdallah ibnu xuzaafa alsahami abdallah ko ci almadain ci buur bu tudd kisra alfarsi kisra alfursi kisra nag moom buñ ko waxee rek xel yépp war naa jëm Iran ndax ñoom ñooy persi yi ñooy yi kon yonent bàngoog ci liggéeyal lislaam di tànn ay ndaw di leen yónnee ci ay dëkk waaye di leen ci ay buur ñeenteelu ndaw yonent ci ñeenteelu dëkk ci ñeenteelu buur yonent bi tànn ndax ndaw lu tudd dihiyatal kalbi dihiyatal kalbi mu yónni ko ci dëkk bu tudd Quds ci buur bu tudd Harqal kaysaru ruum su ne Quds xel war naa dem ci Jérusalem te jamono yooyu buur bu tudd Harqal kaysaru ruum mooy empire romain yi kon ñeenteelu ndaw yonent baangoog ci ñeenteelu dëkk ci ñeenteelu buur juróomeelu lettre juróomeelu dëkk juróomeelu ndawu yonent sallallahu alayhi wa mooy xaatib ibnu abi baltaata xaatib ibnu abi baltaata yonent bi yónni na ko ci dëkk bu tudd al iskandariya ci buur bu tudd al muqawqis azimu misr yonent bi tànn ndaw loolu tudd xaatib yónni ko ci dëkk bu tudd al askandriya ci buur bu tudd muqawqis jiite woon dëkk bu tudd Égypte juróom benneelu lettre bu yonent bi bind buur tànn ndawam yónni fa ndaw yeneen tudd Amr ibnu Aas Amr Aas yeneen tu wala Umman ci Jayfar wa Abd ibnu Abi ibnay Junda Julanda ibnay julanda amman benn buur moo fa nekk mu tudd julando mu faatu ñaari doomam nekk fa waaye terewul yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind na ñaari doomu buur boobu leet pour xamal leen dañoo war a tuub dugg ci lislaam ñoom ak la ñu jiite juróom-ñaareelu lettre yonent bi mu jokkoon ko ndawam mu jëme ko ci dëkk jëme ko ci buur ndaw yonent bi moo doon sulayt ibnu amr al amiri yónni na ko ci buur bu tudd ya buuru yamaama dëkk bu tudd yamaama buur ba tudd Hawzatu ibnu Ali kon juróom-ñaareelu lettre yonent ndawul yonent bi gàddu woon lettre bi mu ngi tudd Sulayt ibnu Amr al-Amiri dëkk ba mu jëmoon moom Sulayt mooy al-Yamaama buur ba mu fa fekk mu ngi tudd Hawzatu ibnu Ali mbokk yi juróom-ñetteelu lettre yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu jox ndawam mu jëme ko ci dëkk jëme ko ci buur ndaw laa nga tudd Sujaa ibnu Wahbin al Asadi Sujaa ibnu Wahab al Asad moom jëmoon na ci dëkk bu tudd xawtatu dimask jëme ko woon ci buur bu tudd alxaaris ibnu abi samir alxaaris ibnu abi samir alxassaani kon mbokk jullit yi juróom-ñetti ndaw a ngi nii yu jëm ci juróom-ñetti dëkk jëm ci juróom-ñetti buur yonent bi alayhi salaatu wasalaam envoyé leen ay lettre yu mu leen di woo pour ñu dugg ci lislaam li lépp nag daf ñu war a jàngal yenent bi alayhi salaatu wasalaam ak takkoom ak taxawaayam ci tasaare diine ak liggéeyal ko ginnaaw ba ko yàlla subhaanahu wa tànnee def ko yonent bu mujj ci xeet wi yemul rekk ci woote yemul ci jihaad comme ni ko gaa yi waxe waaye gis ngeen xattaa sax jël ay këyit bind jël ndawam warloo ko fas ñu jéggi gox yi te dëkk yi ma doon wax ay kilomètres yi la am na ci dëkk yoo xam ne tànk mënu faa dem waaye gis nga ci jamono yooyu yonent bi warloon na saxaaba yi ay fas traversé loo leen montagnes yi ñu xuus géej gi dugg ci biir xur yi ba eggal message yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala bëggee su ko defee mbokk jullit yi lettre yooyu yonent bi yónnee woon mu nekk juróom-ñetti lettre mu jox ko juróom-ñetti ndawam ñu jëme woon ko ci juróom-ñetti dëkk ci juróom-ñetti buur moo doon sunu darsa tey incha allah dimanche bii di ñëw lettre bu ci nekk yonent bi adressé woon benn buur dana wax lan la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind ak buur boobu lan la tontu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.